جرنجن جف يني باين خيل سين من القديم الى القديم لي نانا جامو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي بكي بكي طالبي بكي طالبي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 waaye la ci gën a am solo daal moom eh, ñëpp man mii fi nekk fii di ñu di ma di tudd sëriñ bi dangeen di xool ci man bu leen bu ngeen bëggee jariñu tey ëllëg ku ci bëggula jariñ jariñu tey ëllëg nag yaa xam waaye ku bëgg tey jariñu tey ak ëllëg nag xool ci man na ñëpp dal da ngeen dellu ca kër ya ne tekk déglu ndigal ba ma xam lu waral lii ndax defe naa mos fee am na ñëpp na ñëpp dal te dellu seeni kër ba suba jàmm ba ma xam lii fu mu jógee ak lu ko waral te ku bëgg jëriñu te ak ëllëg nag te tudd Serigne Touba na nga xool ci man boo xoolee ci man doo gis dara lu lu Serigne Touba bëgg te li Serigne Touba bëgg ci noonu moom rek moom suñu njëriñam tey ak ëllëg koo xam ne nag danga fee nekk nekk fi sa bopp a ne nu la sopp loolu loolu jëru laa waxal lay dajeeg yow mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi sa kanam jërë ngeen jëf yéen ñiy bàyyi xel seen site bi di minal xadimi ilal xadimi ñu ñaanal jàmm ju sax dàkk